ko teree nekk candidat. mais la raison pour laquelle Maimouna. ma defal balaa ngay balaa ngay ñëw ci raison. waaw bëgg a may benn scoop côté bi gëm bu ma gëm ni Ousmane Sonko dafay nekk candidat daf ko war a nekk. Hmm. dafa tax man Cheikh Tidiane Dieye après discussion ci biir suñu mouvement muy avenir Sénégal bi ñu bëgg suñu secrétariat ma décidé que j'aurais pu être candidat comme la cinquantaine de candidats te yow xam nga ne du doon candidat wu como parce que dinaa am au moins lu ma ci mën a am mën naa ko. mais j'ai renoncé. pour 2024 à être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi? Pour soutenir la candidature de Ousmane Sonko. parce que dama gëm ni bu may ànd ak nit. attends attends attends attends. bu ma coupé foofu laa dama doon lancé jox la argumentaire bi waaye ñëwal. vas-y répète dama bëgg nga répété kay. da nga amoon yéene nekk candidat. j'aurais pu l'être. da nga amoon yéene nekk candidat pour 2024. tout à fait. mais décidé nga ne. doo ko nekk. du ko nekk pour soutenir Ousmane Sonko. absolument ok et c'est une décision soutenue par tout avenir Sénégal bi ñu bëgg suñu secrétariat yëpp à l'unanimité ñu soutenir ko parce que dañu am ñun valeur yu ñu gëm en politique man je n'envisage pas mon bien-être personnel et mes intérêts personnels au-delà du collectif noonu la ma yàlla bindee je n'y peux rien ñii dañu naan kii yow doo politicien yow doo ci am dara doo man ne alhamdulilah maa ngi sant yàlla politique defaruma dama ñëw ci politique pour am lu ma bëgg a changer dans ce pays dama gëm ni cet acteur politique que moi je connais ma xam ko biir ak biti il ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre et buy dund loolu ba tey mu nekk sur un lit d'hôpital à l'hôpital principal suite à des persécutions ak toroxal bu ñu ko bëgg a toroxal ba ba famiyam ba yaayam ba sonnal partem ba nangam nangam je n'ai pas le droit di toog naan ay candidature ak ay maay def ak nangam te xam ni moom il a besoin que je le soutienne pour qu'il recouvre ses droits parce que dafa am droit ba tey droit yooyu daanuwul parce que ñii naan droit am daanu na teguñu suma loxo lu tax ma ne daanu na man bu fekkoon dafa am lépp jaar yoon un jugement juste procédure légale normale régulière mu aboutir à une condamnation de Ousmane Sonko ñu ne ah condamné nañ ko mënuñu ci dara dama naan Ousmane Sonko ne pourra pas être candidat en 2024 dama ko naan mon ami ay la yéwén lii la yàlla dogal ci yow nañu wut yeneen pexe mais man gëm naa ne il peut moo tax man Cheikh Tidiane Dièye avenir Sénégal bi ñu bëgg Sonko sera notre candidat et on a ah décidé de dire à nos militants et sympathisants que Sonko a le droit d'avoir des parrainages parce que man li ministre bi wax doyuma donte mooy ministre de la justice dafa ni Sonko sa sa condamnation et définitive man ma dem xooli article bi lu ñu suñu loi moo ma gënal ministre bi loi bu Sénégal constitution bi ak suñuy loi moo tax ñu naan réew warul soxla des hommes forts dafa war a soxla des institutions fortes man bi ma demee ba gis li sama loi réew wax te moom laa gëm parce que loi bi dama ko fee fekk ñu bind ko ci ñoom Senghor bind ko ci ñoom ab Abdou Diouf bind ko ci ñoom Abdoulaye Wade mu nekk une historité historicité de notre état ma ne loi bi loi bu baax la ñu ko bind duñu ay dof. mais mais moo tax ma taxaw foofu ma ne man 2024. Ousmane Sonko est mon candidat. parce que teguñu sama loxo lu tax ma mën a renoncer ba bàyyi ko moom. mu mu bañ a jouir de ses droits.